asalaamaaleykum mbokki internet Sénégal la bokk dal leen ak jàmm coowal suuf doon dudul jeex fii ci biir réewum Sénégal bile yoon coow fi amoon ci diggante Babacar Ngom directeur d'exploitation bu Group ak population ba yeewoo ca diwaanu Ndingler féete ca Ndiaga Niaw coow loolee ñu jàppoon ni jeex na moo daal di yeewuwaat tey ndaxte ci lënd bii ñu weesu ay affrontement yu metti moo am ci population bu bi ak yor wàllub sécurité Babacar Ngom ba sax ñenn ci askanub Ndingler gaañu nañu ay gaañu yu metti ba sax kenn ki lee di ci turu Ibrahima Sène moom dañu ko dóor ay barre de fer yu metti ci boppam ba sax l'hôpital la daal dee mujjee jee coow loolee nag ki ci war a àddu te ñu jàpp ni moom mooy chef de résistance des paysans de la population de Ndingler di wuyoo ci turu Abdoulaye Jonn moom Abdoulaye Jonn li mu xamle moo di ne bu jaree ñu bàyyi seen bakkan ci xeex bi lee dinañu ko def waaye duñu nangu tey duñu nangu ëllëg kii di Babacar Ngom ak ay ñoñam di ñëw jël seen suuf te ñu jàpp ni seen moomee la ndax seen ay maamaati maam ñoo leen ko fi bàyyeel loolee la Abdoulaye Dione daal di xamle ginnaaw bi loolu itam ci ak fàttali ñu mën leen wax ni moom Babacar Ngom titre foncier bi mu jàpp ni moom moo ko moom mu di teer yooyee am ca Ndingler waral xeex bi yépp dafa ne moom moom moom suuf soosee te fu leer la ko teg bu jaree mu indi ay kayitu leer ñépp xam ni ak moomeelam la dina ko def li mu proposé woon waa Ndingler moo di ne daf leen

il a été tenu au courant manam wax nañ ko ne amna ay xeex yu metti yu am foofu li ca Ndingler ba yenn ci askan bu fay yeewoo am ci ay gañ yu metti kenn ki di wuyo ci Ibrahima daal di l'hôpital manam dañu ko gañ ba l'hôpital la daal dee ci loolee moom Bassirou Diomaye fay président national des cadres PASTEF moko ko daal dee xamle fësal ko ci page Facebook am leneen liñ ci mëna japp batay itam am am na kuñ ci dugal koo xamante ni baaraamu tuuma lañ ko daal di joxal yoo ci turu président Macky Sall moom moomee nag la ñenn ci askan bi wala ñi nga xam ni ñoo jàpp ni coow li yépp moom moo ko waroon a fay daal di joxoñ baaraam di ko wax ne ko bi nga xamee ni war naa jël ay solution pour jeexal problème bi defu ko li mu def mooy di jàppale lépp loo xam ne jëm na ci wàllum exploitation des terres maanaam nangu gi ñuy nangu suufu jàmbur yi ñëpp di ci teg yéey ci yàbb ci loole la ñenn jël teg ko ci ndodd ki nga xam ne mooy président Macky Sall ñu jàpp ni rek ci bu yàggul dara ay solution dinañu ko jël ngir jeexal wala dakkal lépp loo xam ne lu jëm ci wàllum nangum suuf la fii ci biir réewum Sénégal